Benno Bokuyaka-Tivavon devra faire face à la grande coalition d'Omutuawan lors de cette cérémonie d'officialisation de leur candidature aux prochaines élections du Haut Conseil des collectivités territoriales. Les membres de la coalition disent vouloir faire de la politique autrement. Nous apportons un changement à la manière classique de faire la politique. Nous croyons à la politique de développement notre combat sera axé une fois élu et accentuer le regard sur l'entrepreneuriat, surtout la jeunesse et le travail. Nous, nous défendrons Tuawan et nous donnerons cet objectif si possible qui est de servir Tuawan. L'objectif visé à travers cette coalition est de faire entendre les préoccupations de Tuawan. Depuis sa création récente, Tuawan n'a jamais senti être parmi les collectivités locales ayant une voix dans cette institution. Ce défi, nous avons l'obligation de le relever. Un grand espoir est porté sur nous, pour les populations que nous avons rencontrées et nous nous donnerons les propres moyens pour atteindre chaque objectif. La coalition Domutiaon a invité les conseillers des 18 communes du département de Tivavon à voter massivement leur liste. benn Bokk Yaakaar Tivaouane nar na janoog grande coalition bii ñu duppee seen bopp doomu Tivaouane ci cérémonie bi nga xamante ne dañu doon siiwal seen coalition ñoom nag jàpp nañ ne daal seen candidature dafa jëm daal ci soppi doxalin ci wàllum politique. waaye dañu gëm ne Tivaouane war na taxaw bëgg a changer politique bi nga xam ne doon nañ ko fi gis naxaate bi dañu ko bëgg a jëlee fii dañu bëgg ñëpp am conscience que ni ndaw ñi war nañ leen a jox responsabilité ñu liggéey liggéey bi. di tax nag ñu bokk ci élection yooyu lay daal moo jëm daal ci fexe ba ñëpp dégg njàmbatu waa Tivaouane. dëkk bi ñu ne di Tivaouane suñu loxo dañ ko ci def ci biir ak ci biti ñu woo ndaw ñi yamul Tivaouane rek waaye ci département bi yëpp. loolu rek ci la ñuy invité ndaw ñi mag ñi suñu yaay yi ak suñu papa yi ak suñu kilifa diine yi. ci tout ci département bi yëpp ñu ñëw ànd ak ñun ci combat bi nga xam ni dañ koy mëne pour Tivaouane di ko mëne pour département bi waaye di ko mëne pour jeunesse bi parce que dañu toll ci jamono boo xam ni ndaw yi ñooy porté combat yi mag ñi topp seen ginnaaw di leen ñaanal di leen yokk jom coalition doomu Tivaouane woo na bépp conseiller bu nekk ci fukk ak juróom-ñetti communes yi nekk ci département bu Tivaouane ngir ñu wooteel leen ci élection yooyu lee